sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci ajuma ji di ñaar fukki fan ak ñett ci safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñu bàyyi ko di leen jaajëfal ci seeni jëf di leen massawu ci seeni coono di ñaan yàlla sunu boroom lépp lu ci waay jëf ngir jëmmam yàlla na ko yàlla nangu ku ci wax kàddu ngir defar wala nga làmb sa def ci saw ñaq ngir defar wala nga sonn ci ngir sant yàlla na nga ci daje ak ngërëmul yàlla ak mbégum sëriñ bi bisub cant boobu nag ñun ñëpp maase nañu xam ne cant moo gën a kawe lépp ndaxte li ñuy wax at taqwa te at taqwa mooy mel na sunu borom bëgg nga xam ne santaane yi mu santaane daanaka yëpp bëgg nit ki am taqwa rek moo tax yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun la ci teg bi mu digal woor dafa am melo woo xam ne koor da koy maye bi mu nuy digal julli dafa am melo woo xam ne julli da koy maye inna salaata tanha an alfahshaai wal munkar bi mu ñuy digal asaka dafa am melo woo xam ne joxe sa alal koy da maye xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha boo ko seetee jaamu yàlla yépp dafa am melo woo xam ne sunu boroom dafa bëgg ñu mel noona te loola mooy at taqwa suñu góorgóorloo nag ba am taqwa lenn rek moo moo nuy dese muy ashukru muy sant yàlla moo tax yàlla wax ne fattaqullaha laallakum tashkuruun su ngeen amee taqawaa mooy tax ngeen mën a sant santkat yi nag soo ko doon jeex ci biir jaame yàlla yi ñu néew lañu bari na ñu jàpp ne ña sant te santuñu yàlla nee na wa qalilum min ibadiya shakur sama jàam ñi ñu neew ñoo ci ay santaakoon moo tax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko lépp ndax defal na ko lum defalul kenn te teewul mu daan taxaw guddi di naafila ba ay tànkam di newi ba ñu ko laajee ne ko coono bii ngay teg sa bopp ana lu ko waral te yàlla defal na lépp mu ne li ma yàlla defal lépp moo tax nag ma war a sonn ngir laxasaayu sonn ngir sant yàlla mu ne afala akunu abdan shakura moo tax ku baax kii bi ku yàlla defalee lim ko defal mu xam ne sant ko war na santaana ñu santale ko dafa wax ne lahu alaya shukru bil aqlaami wal wal qalbi wal jasadi wal kalaami kon léppam sant yàlla la kon nag coono yi nga xam ne nit ñi sonn nañ ko ngir bis bi yàlla gis na ko te yàlla ku jëf ngir moom mu gërëm la te ku yàlla gërëm sëriñ bi bég ci yow waaye nañu ràññee nag ne màggal ak màggal si bokkul am na ñu toog seen kër ak seeni dëkk te màggal nañu am na ñu ñëw tuubaate màggal nañu am na ñu toog fa ñu dëkk màggaluñu waaye am na ñu ñëw tuubaati màggaluñu ndax màggal dafa am nu ñu koy defee màggal dangay ngay tudd yàlla màggal dangay ngay yàlla màggal dangay jàng ngay jàng alquranul karim màggal dangay jàng jàng alqasaid al mubaraka màggal dangay ngay bernde màggal dangay jokk sa bokk yeesal sa kóllëre fedd le sag taalibe waaye am na yu ñu gis yoo xam ne ci dëkk bi sàmmowul ak warumay dëkk bi te du màggal am na ñoo xam ne ci seen biiri kër solu ak simmiku moom lañ doon def am na ñoo xam ne di takk ak a tekki moom lañ moom lañ doon def ay waykat di leen way ñuy maye alal alal ju jàllaañoo te sémbi sëñ Tuubaa nekk fi sémb bu rëy bii ñu sémbu nekk fi ñëpp war cee feeñal seen yéene waaye am na ñoo xam ne puukarewu di takk jamaa di takk wurus di solu di simmiku moom lañ doon wax ne dañuy màggal waaye loola du màggal te itam kilifa yi fas nañ ci yéene taxaw ba dootu am ndax loolu du sant yàlla loola du wormaal dëkk bi loola du wormaal sunu kilifa gii ne ci sunu kanam ndax képp ku xotti wormay lislaam rek yaa ngi koy tooñ képp ku teggi njàngalem sëriñ bi yaa ngi koy tooñ ndax ca loola la sax guddeeg bëccëg ca loolu lay soññee kon nañu xam ni ñuy màggale nañu xam ni ñuy sàmme waru dëkk bi te bàyyi puukare mi ndax loolu ñu doon def yellul fenn sax waxuma la ci dëkk bi yellul fenn soloog simmiku takk ak tekki alal juy jallaañoo ak a way ak a tëgg ak a fecc yellul fenn waaye fii da cee raw kon ñi ko doon def yàlla na leen yàlla wëlbati gindi leen ba ñu xam ne taalibe day jëfe ndigal bàyyi lañu ko tere alsidqu fi mahabati cheikhi abad thumma imtisaalu amrihi xaysu warat loola mooy ak taalibe bokk na ci sant yàlla nag sunu boroom jox la wërsëg nga delloo ko yàlla xam ngeen ne ku baax ki bi muy ñibbisi ci dëkkam bii bàyyi woon na ñetti naal yoo xam ne sottiwul ci kanamam ndax da doon ku nimsee aji màkk ba waajoon na ko sax waaye gàllankoor yi tax defu ko dam ko bëgge woon waaye ginnaawam taali bi yépp maase nañ di ko mottalil yéeneem di dem màkk ak a ñëw kon naalam la woon bokk na ci naalam jumaa ji ñu toog moo ko naaloon bëggoon ko ci dëkk bi ginnaawam taalibe yi laxasaayu defal ko ko ni ko bëggee yemuñ ca waaye defal ko yeneen jumaa ci biir dëkk bi ak bitib dëkk bi foo dem mbooloom taalibe bi nekk fa def nañ fa néegub yàlla di fa dundal diine waaye dafa mottali yéene ku baax kii kon yéenam la woon ba ko ñetteel nag moo di amoon na yéene tabax ci réew mi daara joo xam ne sowu jant gépp dañuy laxas dafa sàkku ci xam-xam naal woowee nag nga xam ne ñi ko wuutu ak magi taalibe yi kenn ku nekk yaa ngi doon bay sawaar foo dem ci këri kilifa yi def nañu daaray alquran def nañu daaray xam-xam di fa jàngale téere bi yàlla bi di fa jàngale xam-xam kon lam santaane woon njabootam mësuñ caa jóg waaye cheikh abdul ahad yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer nag dagg suuf su yaatu soo xam ne dana fii daara joo xam ne day mott li sëriñ bi moom laa ci jublu daara jooje nag moom la sunu kilifa gi songu ngeen ànd ko ak moom ñu ànd ko ak moom ba mu yegg si fii kon nag ku ci am euh, euh, ku ci am sas tuut war ngaa xalaat leneen lu muy di puukariwu wala nga di ko yàq ku ci faste xànc ak moroom ja ba sunu borom wër wërsëgale dara war fexe ba saw ñaq dem ci liggéey bii ndax soo ko defee ya bokk nga ci ña nga xam ne ña ngay mottulil ku baax ki yéeneem te xam ngeen ne liggéey bi sori na waaye des na te sunu kilifa gi nee na nañu xam ne bis bu yeggee ba ñu ubbi ko la koy doxal moo gën a diis doxal ba dafa diis gann te nun noo ko war a doxal ndax baaxoowunu tàllal lox baaxoowunu jéggaani fenn kon nag noonu rekk la war te bu ñu ko jéemee man ko ndax jumaa yi ba ñu koy tabax dongoy daara yi ko ci sarax danaa la bàyyi yàlla na nga fekkee matuk jumaa ndax defoon na defoon nañu ne balaa sotti kenn xamul kañ lay doon bàyyi yàlla na nga fekkee matuk jumaa ji jumaa ji mat na kon daa daara ji day mat te moom mii ko sungu sumb ko yàlla na ko mottali waaye nag la koy doxal woyeful loola nag futtiku liggéey daan doole mooy tax nit ki am lu mu ca def moo tax ku baax ki wax ne xuliqal badanu xiina ma futir li kasratil xidmati fi ma qad umir yàlla ba mu ñuy sàkk bëgg ñuy sonn ci ay santaane moo tax te bokk na ci ay santaaneem sàkk lu lew wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi geyri wahami sàkk lu lew far ci bépp jullit kon nag nañu fàkk lu lu lew te moom ñaanal na ko njabootam anqis iyaali min addalaali wa bilxalaali xallit tharaa'i waxaat na ne laka shukuri ala alxalaali yaa maaxiya al imlaaqi wa dalaali kon ñaanal na njabootam bu ñu sàkkoo lu lew dañ koy am salli salaatan tusbitu alxalaala indi wa minni tamnau dalala al ak waltaqini dalala wal wal idlala wa qudli maa rida alxalaala kon nag nañu fexe ba liggéey ba am lu te ku ci am lu rikk nag bu ko di ko sànq mooy di di ca puukarewu di ca def naka su dul noona di ko def ci loo xam ne du farata du farata sunna wa in wajadtahu fala tudayiaa wa man yudayici lxalaala duyiaa soo ko amee bu ko sànk ndax boo ko sànkee da ngay sànku yàlla ni mu fonke julli noonu la fonké fab saalal alal def ci yoon yàlla wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun kon ni mu fonki julli ni la fonki ngay fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla jullig ajuma gii tax ñu daje fi yàlla da ca ñaaxee da ca soññe wax ne yéen ñi wax ne gëm ngeen bu ñu noddee bu ñu wootee jëm ci julli bisub ajuma fas aw ila dikrillaahi la wa na ngeen lagg dem jaamu ji yàlla te bàyyi jaay ak jënd kon da soññee waaye bu ñu jullee ba sëlmal tam bëggul ko toog ci jumaa ji dafa bëgg ngi dellowaat nag daane sa doole moo tax mu ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtaxu min fadlillah kon yàlla dafa bëgg nit ñi di daan seen doole ba muy tagg niti àjjana ya di wax jëf ya may àjjana muy néewal ay nelaw guddi di jéggulu yàlla njël dajaa teg ni wa fi amwalihim xaqun lisaaili walmahrum dañuy fab seen alal de ko def ci yoonu yàlla nee na gëm leen yàlla te lim leen dénk ngeen defaar ko ci yoonu yàlla aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ñi nangul yàlla di fab seen alal de ko def ci yoonu yàlla yàlla nee na dencal na leen yool bu rëy ab jullit warta téye yëfam taali bi da caa raw taali fu mu déggee ñu ne jullit dafa war a xam ne moom dañ koo jëlale lu tax ndax li mu yoree da koo moomul moom sax moomul boppam bay moom alalam kon nag na fab la mu am jox ko boroom mooy li ma wax léegi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii am na sax fu mu gën a leere wa aatuhum mimma lillahi alladi aataakum alal yàlla jim leen jox def leen ko ci li yàlla bëgg te yàlla mi moom asamaan ak suuf moom lépp soo ko dee sooy def ci aw yoonam tam moom lépp xamal ne ñàkkoo dara wa ma lakum allaa tunfiqu fi sabilillah wa lillahi mirathu samawati wal ard teraange adduna ji tax ñuy nab nabi ci alal di ko téye ba duñ ko nangoo joxe nañu xam ne soo ko peesee ak teraangay àllaaxira du mat dara kon nag rik bul jënd teraangay adduna nga de ko jënd teraangay àllaaxira fab sa alal ko doo ko nangoo def ci yoonu yàlla ba xañ la teraanga ay ëllëg dara jëru ko ndax yàlla lam lay lam den dencal ña ko gëm tey def ci aw yoonam moo gën fuuf li ñu yore fa ma utiitum min cheyin fa mataau alxayaati dunia wa ma inda allah xayrun wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim te alquran dafa tëkku ñi yor alal ba noppi di ko rënk di ko denc duñ ko nangoo def ci yoonu yàlla te xadis nee na su ëllëgee nit ki balaa siqib jéego ñu laaj ko ñeenti laaj bokk na ci laaj yooyu ñu koy laaj sa alal ji ana foo ko jële ak ba nga ko fàggoo ba noppi foo ko def ana foo ko jële soo layee lay génn ca ñu ne la ba nga ko amee nag ana foo ko def kon mat naa bàyyi xel te soo yoree wërsëg da ngay njëkkante ak jamono ndax xamoo ci sa bopp dara ndax soo yoree ñàkk day ñëw day dabe ñaata nit ñoo yoroon te tey amatuñu dara kon ñàkk day dabe soo wéree wéri di day dabe soo amee jot ñàkk jot day dabe waaye sooy dund dee day dabe te sax fab sa alal def ci yoonu yàlla day wane ne yaa ngi sant yàlla kii def ci yoonu yàlla mi ngi sant yàlla te yàlla nee na ku sant ma dolli la sunu sunu boroom nag moo sàkk ay jaamam te yemalewul wërsëg yi tollowul bañ a jëf rekk nag mooy sikk mooy ayib soo amee lu néew ngay def lu néew soo amee lu diggu doomu defal lu diggu doomu waaye soo amee lu bari nag rekk defal lu bari wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq te nañu xam ne def ci yoonu yàlla day sàmm sa alal da koy ñàkk da koy sange yonent bi nee na alayhi salaatu am xassinu amwaalakum bi sadaqa te itam jàngoroy xol benn yéesu ci nay te soo dee joxe sa alal ci yoonu yàlla sunu borom musal na la ci nay wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun dem nag ba nga xam ne amatoo pexe ndax dee ñëw na ngay door a kër-këri nag di fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla njariñ njariñ la du njariñ la du bari dafa am ku mosu ñëw ci rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ne ko ayu sadaqati aazam def ci yoonu yàlla bu ci gën a rëy mu ne ko at at tasadduqu wa anta saxiixun saxiix mu ne ko bi nga wéree càndang sa alal gën la lépp taxshal faqara wa taamalul xinaa li nga yor soo sañoon muy dolliku waaye du wàññiku nee na nga joxe ca loolu moo gën wala tumhil xata ida balagatil xulquum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa li fulanin kada mu ne waaye bul nëg a ba nga xam ne euh, pexe amatul nga naan joxal leen ma diw nangam joxal leen ma sëriñ bi nangam ca liggéey ba joxal leen ma diw nangam moo tax yàlla ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum al mawt wa yaqul rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min asaalihin bare na ko yor wërsëg nag du ko joxe te seytaane rek moo ko man ndax seytaane moo naa la li nga daj ba am li nga lii nga am fi nga jaar ni nga sonne woon ni nga tumuranke woon ñépp di la seetaan kenn jàppaliwu la yàq sam xel nga naan su dee joxe day danaa dello ca na ma meloon alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha minhu wa fadla wallahu waasiun alim xoolal sayduna abu bakar mos naa xëy si ngën ji mbindéef alayhi salatu wasalaam jox ko lam am lépp jeexal tàkk xol bu tol noonu mooy xolub murit xoolal Sidna Omar mos naa ñëw joxe genn wàllu la mu am loolu mooy xolub murit xoolal Saad ibnu Abi Waqaas mos naa ñëw joxe ñetteelub la mu am da xaaj ñetti joxe benn ba loola mooy xolub taalibe xoolal Ousmane li mu jëf ba tax ñu mbaa yàlla ko wax ne ma darra Ousmane maa faala baadal yow Ousmane day bés ni tey lu mu def jig na ko lépp ku jig lu ko neex def xaazab na tayhi wa ridwanan wa maxfiratan id anhu qad xutta ijhaarun wa israaru xoolal ku mel ni maam Ceerno Birahim lim jëf ak mag ñi àndoon ak moom ñëpp xoolal ko mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne mësta génne asaka ndax mësta am nisaab lu am joxe daraam du toog ren ba déwén noonu la mag ñi daan doxale moo tax sëriñ bi ne amma tasadduqu ma al fa jamaa al xayraati bittifaaqi nit ki lam gën a bëgg bala ca jot day joxe lam gën a bëgg lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuxibuun te lu ngeen def nag yàlla xam na ko ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim doomu aadama nag rawate na ndaw ko ndaay dañoo bëgg alal bu leen yàlla joxoon li ji kaw suuf lépp ñu téen ca kaw ne bu ci boole woon la ca kaw asamaan te dana baax day gën a baax qul law antum tamlikuuna xazaa'ina rahmat rabbi idan la amsaktum xashyata al infaaqi wa kaana al insaanu qatuura moo tax soo dee joxe nag lu mu bari bari bari yàlla mi la ko joxoon dalay wuutalal li annahu subhaanahu taala huwa alladi aataaka daaka almaala fa xaysuma aksarta fihi talafa li wajihi aataaka jàllal xalafa kon yàlla la ko jox soo ci dee joxe ngir jëmmam mu jox la loo xam ne moo koy wuutu am na bis ku tedd ka laaj saxaaba yi ne leen yéen seen yëf ak yëfi jàmbur lan moo leen ci gënal ayyukum maa maalu waaris maalu waarisihi ahabu min maali yéen kan ci yéen yëfi jàmbur moo ko gënal yëfam ñu ne ko kenn ku ne ci nun nag yëfam moo ko gënal maa minna ahadun illa maaluhu ahabu ilayhi mu ne leen sa mooy la nga dawal ca sa bàmmeel la nga def ci yoon yàlla mu jiitu lu ci sa bàmmeel muy muy sa yëf waaye li nga faatu bàyyi ko fi mooy yëfi jàmbur fa inna maalahu ma qaddam wa maalu waarisihi ma axar mos naa wax ne nit ki danaan sama alal ji sama alal ji sama tool yi sama fas yi sama wata yi sama boutique yi sama pak yi di lim alalam mu ne alal ji li muy bari bari bari wa innama lahu min maalihi salaas ñett la ci am maa akala fa afna aw labisa fa abla aw aata fa aqna li nga lekk ba mu rees soone maako moom wax nga dëgg li nga sol mu ràpp soo ne maa wax nga dëgg li nga joxe ci yoonu yàlla mu jiitu ji la soo ne moom wax nga dëgg waaye lu dul loolu nag danga ko fi bàyyi bis moo tax sëriñ bi daana wax ni nit amul lu mooy ñeent boppam ak i bokkam ak alalam jëfam nee na sa bopp boo demee ba la nga gënoon a bëgg ci àdduna waxatoo ca dara amatoo ca soxla xamal ne ñàkk nga sa bopp say bokk ñoo la dese say bokk soo faatoo ñu yenu la yóbbu gas ba mu xóot ñu suul la wan la ginnaaw ñàkk nga leen sa alal moo fa sës sa alal bu ñu ko miraasee séddoo ko kenn ku ne jël wàllam amaana sax buñ koy séddoo dañuy xuloo ñàkk nga sa alal sa jëf moo fa des sa jëf nag bu dee jëfi yiw nga saxoo alhamdulilahi rabbil alamin bu dee safaan nag nga saxoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nañu ci yàlla musal kon nag nañu bàyyi xel na kon sémbu bii nga xam ne moom la kilifa gi sémbu ñépp a war a takkuwaat ñépp a war lu ci waay di def soo ko mënee nëbbu moo gën lu baax des koy nëbbu bula leere ne boo ko feeñalee ñu la na ko feeñal yàlla nee na in tubdu sadaqaati fa fa ni'imma wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqara fa huwa xayrun lakum kon nag ku ci amati wërsëg def ko ci yoon yàlla mi nga xam ne lu waay def xam na ko lu waay yéene xam na ko wa laazimu l infaaqa fi sabili man lahu l qulubu walfiaalu wazaman kon daal li ñuy tëje moo di weeru màggal mi ngi tàggoo weeru gàmm mi ngi dëgmal ni ñu fonke màggal gi nañu xam ne boroom màggal gi ko fonkoon gàmmu la chakartuhu id xassani bi xidmatil maaxissani kon nag nañu ko waajal te dëppale ko ak sunna ni ñu dëppalee màggal ak sunna waaye di màggal daal di solu ak a simmiku di takk ak a tekki di fecc di tëgg di way di mayab xaalis neexul yàlla neexul yonent bi neexul sëriñ bi neexul kilifa gi fi nekk kon ñi koy def nañ ko bàyyi yàlla nu fi yàlla bàyyil sunu kilifa gi nag mu yàgg fi lool yàlla xotti baax ci aw fanam ba lépp lu mu naal mu mën koo jëf te su koy jëf nag yàlla na nu ko ànd ak moom mu làq ca ngërëmul yàlla ak mbégum sëriñ bi ndax yàlla ku mu bégal ku mu gërëm sëriñ bi bég na sëriñ bi ku mu bég ci moom yàlla gërëm na la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 وأكبر الرضوان أن عبادة الله الملك الحق هي ثمرة العلم الذي هو شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق كثيرا من أصناف القلق وهي سبب الفوز والنجاح wa sabilu saadati walfalaax wa hiya shariatu alxaqiqa wa xaqiqatu sharia wa minhaaju ljanna qaala taala wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun wa aclamuu anna cibaadata allahi لها شطران شطر الامتثال وشطر الاجتناب وأما الامتثال فهو فعل الطاعات وهي فرائض والنوافل فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة wa bihi taxsulu najaatu wannaflu wa huwa ribxu wa bihi taxuuzu lfawza fi darajaat qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam yaquulu allahu taala maa taqarraba ilaya almutaqarribuuna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 alhamdulillahi al-aziz al-ghaffar mukawwir ad-duhur wa mufiid al-bihar wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin qudwati al-abrar wa mawhidati al-fujjar wal aali wal ashaabi nujuumi al-ihtidaa wa saa'iri taabi'iina maa daama bihimul iqtidaa amma ba'du fa yaa ibaadallah tadakkaruu qawla nnabii sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunyaa ka'annaka gariibun aw aabiru sabiil wa akthiruu min dikril mawt وقصروا الأمل فإن من قصر أمله وكثر للموت ذكره جد في سالع العمل وهرب من التسويف والكسل وزهد في الدنيا وقلت رهبته فيها واشتد حرصه على الاستعداد للأخرى wa baadara bitawbati wa tabaacada can kulli maa yusqiluhu can ittaaca waclamuu cibaadallah annakum taxsawna allaha bijawaarixikum wa hiya nicmatun cazimatun manna allahu biha calaykum wa amaanatun minhu ladaykum fa in istaamaltumuha fi taatihi wa saraftum kullan minha lima xuliqat lahu faqad shakartumu nicmata wa xafidtumu lxurmata wa addaytum wa axsantum lillahi lxidmata wa lakum cindahu jazaau shakirin wa sawaabul muhsiniin fanzuru kayfa tahfazuunaha wa tar'awnaha fa innaha awwalu ra'iyatikum qaala ta'aalaa man amila sayyi'atan falaa yujzaa illaa mislahaa wa man amila saalihan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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر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 الله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 الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.